bon mi bëgg a gudd. Euh, euh, maa ngi ñëwaat Alassane s'il te plaît. non non bon pour pour pour gone yi sàllalu mag. Uh-huh. man je dirais que ni euh, gone yu dul gone yi nga xamante ni nee nañ ñoom dañuy sàmm seen kàddu. Uh-huh. moi je préfère gone bu dul sàllalu mag. Uh-huh. gone gu jox cër mag. gone gi nga xamante nii xamee na kan mooy kilifa. Mhm. ak waxin aussi dañ koy jàng. parce que nit mën nga koo wax safaan. Mhm. te doo ko offensé. très bien kilifa mais mais mais foofu moom euh, mon ami Alassane sëñ Abdoulaat moo ko waxoon. Mhm. nan mag ñi yëram ndaw ñi. bu ko defee ndaw ñi mun a déggal mag ñi. Euh, bindu Sëriñ Tuubaa la sax nag gis nga euh, hmm? Alassane la bu si fay defe waaw Alassane. gis nga. c'est-à-dire des fois quand on parle sax dañuy dem ba naan la est-ce que féetewoo fële wala féete kii yoo fi ngay wax noonu tout à l'heure gis nga animosité bu am ci politique bi. Mhm. je vous dire que ni. j'ai pas utilisé le mot animosité. non moo am moo am. moo am man man du ma ko. utiliser non non moo am. saa moom ku kiiwul par principe du ma ko utiliser. non moo am. Mhm. adversité bu amoon. moo fi moo man pour man looloo fi yàgg am. Mhm. sérieusement quoi. Ouais. mais depuis 2012 li fi am moom Alassane vraiment. non ça... on dirait 2015 ou 2016. ça a commencé 2017 ça a commencé non li fi am léegi 2017 et puis gars yi ñëpp xam nañ fan la jógee. ça a commencé dinaa wax dinaa wax samay ndaw bu ñu bàyyi saaga yi. loolu fi nañ ko dégg ça commencé man mm. constant bi ma def. depuis l'arrivée de euh, de de de Macky au pouvoir. non moi je dirais non. ah way xaaral ma ñëw Assane may ko màggale may ko màggale s'il vous plaît Assane may ko màggale. laisse-moi venir rek euh, Alassane. Mm. Abdoulaye Wade nekk na ci bopp réew mi ba jóge fi il a jamais enfermé une un opposant musul topp opposant di ko créer wala di ko indil problème. ba ko neex mu def. ba opposant bi xaar rek <laughs> Khalifa Sall qu'est-ce qu'il a fait. ah caisse euh, euh, d' avance il deful dara. Ah, non non non non. xaaral ah, non kam je viens kaay ma ñëw kaay bàyyee rek ma ñëw. may ko mu ñëw may ko mu ñëw allez-y kilifa je ne défends pas quand on utilise le contribuable sénégalais je ne défends pas. Mm-hmm. mais Khalifa Sall pour être honnête nañ leen waxante dëgg tout le monde sait ici comment on gère la gestion de la municipalité nañ leen waxante dëgg nañ leen foofu fii moom ñëpp xam nañ ko. ah non man xamuma boobu. Euh, xam nañu ko. bu ñu jógee ci Khalifa Sall Karim Wade tout le monde te dise que oui c'était une demande sociale moo tax dugg na fi génn fi. non boobu peut-être mën nañ d'accord. non non non kilifa. il ah, faudrait ñu recadrer boo ko waxee. à mon avis c'est remettre en question toute une institution. waaw bàyyi ma man Karim Wade je pas là très honnêtement pour. ŋàññ la personne de Macky Sall ou défendre la personne de Karim Wade mm. sérieusement milité wu ma ci kenn. milité wu ma ci ci kenn. Mhm. Ousmane Sonko lan la def Macky Sall ba mu dàq ko rajee ko rien du tout lu dul xëy am ambition ni dama bëgg a politique. sérieusement nga far fa nga ñàkk fa far nañ leen wax te yàlla rek tax ambition je veux au-delà de. lii may def nii dama bëgg a yokk samay ambition mooy dama bëgg sérieusement impliqué wu carrément sur la gestion de l'affaire publique mais cette fois si xaaral laisse-moi venir laisse-moi venir. en tant qu'acteur mais cette fois-ci en tant qu'acteur ku wax ak sa bàmmeel loolu la Ousmane Sonko jote ak Macky Sall Macky Sall rajee ko. la mais si yéen non non non mais ñu ngi fi nag yéen mais est-ce que est que à part Ousmane Sonko da ngeen déggaat ku ñu rajee. li ngeen di wax kilifa daf leen déglu. may leen mais est-ce que à part Ousmane Sonko da ngeen déggaat un inspecteur des impôts et domaines bu ñu rajee. dégguma ko de. ah non mais kon nag nañ leen nañ leen waxante dëgg c'est-à-dire c'est moom moo buggul. mais parce que au lieu de reprocher d'avoir divulgué euh, kilifa. mais loolu loolu bokkoon na ci li ñu koy reprocher divulguer ay euh, secret yoo xam ne waru ko génne. Euh, aujourd'hui loolu avancé woon en tout oh, cas. waaw léegi ma ma daa ñoom xam nga foofu ab toujours rek. dinañ hmm. indi lu ñu kii. oui mënuñu tey jii nii. Hmm. y a combien de détenus politiques. y a plus de 300 détenus politiques. Oui. ce ne sont pas des détenus politiques ma jël ki nga xamante ni sama sama naataango la xaaral may leen ma ma ñëw su ngeen ma bàyyee ma ñëw li may expliquer sénégalais yi ñu ngi ñuy mhm. je ne suis pas là pour charger. wala mhm. décharger x. mais du ñu nangu ko ah, non non non. ce ne sont pas euh, des dof mi nga xamante ni. rappeur la suma naataango mhm. il a fait une vidéo. vidéo bi man ci li ma dégg ñu ne dafa am benn injure mhm. te injure boobu am ci vidéo bi nit dof jublu jubalu ko ci kenn ku dee ak sa bàmmeel mhm. waxul yow Moustapha wala yow Alassane wala yow diw sa nangamtaan mhm. dafa taxaw di wax naan du ma ko nangu nangamtaan ñu may def lii ñu may jàpp jaam jàppal bàyyi nit dof sa fe quatre mois il est en prison oui. avant nit dof moi j'ai regardé une dame qui s'appelait Penda Ba qui a insulté toute une communauté yéen wolof yëpp seen nangamtaan moi j'ai vu Ahmed Suzanne Camara qui a dit ubbi micro ne nañ leen dem fekk di fa mu nekk ñu rendi ko rey ko il vaque à ses occupations Khadim Samb chef d'État da nga war di rey nit ñi il vaque à ses occupations j'en passe bëri nañu chaque jour ñi nekk ci ki ñi ànd ak Macky Sall ils ont le droit ils ont le droit de violer les lois. ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. ils ont le droit d'utiliser les caisses d'avance comme ni ñu ko bëggee mais dara du leen mais si toutefois que tu n'es pas avec Macky Sall boo laalee picc de. <laughs> c'est la prison mais loolu moo dem ba créer animosité bi ci ci espace euh, espace euh, politique. si si désolé non non non non non au-delà de l'opposition y a une animosité. Ibrahima Ndiaye ah, mais bon loolu moom ñoom la quoi. copine nga reere tey alors si euh, <laughs> war nga rek en forme alors allez-y euh, Pape ñu ñëwaat ci ci ci li xew tey. ah, ah kilifa bala may ñëw la la le cas nit dof quand man ça me. non sérieux ça me préoccupe nit dof on doit le de dès demain. nous nous l'avons reçu ici. quand même c'est au-delà de de son art nga xam ne moo kilifa ñoo yem ni ñu koy defee rek c'est un garçon euh, d'une correction extraordinaire. franchement du saaga kenn du wax lu ñaaw. Alassane xam na ko bu baax a baax. xam naa baax a baax xam nañ seen ay njaboot c'est pas du c'est pas de ce genre là donc minute bu mu def ci kaso bi rek man jàpp naa ne minute bu ëpp la te mais il n'est pas le seul moo waxoon yaaram yi ci kaso yi te defuñu dara mais je crois que war na ko wayaat wala ngeen wayal ko ko yéen mais Youssou Ndour sax man damay profité interpeller ko en tant que premier ministre de la culture sous Macky Sall mm-hmm. et dañu jàpp parce que ñoom Samba Dang mm-hmm. ñu ngi xeexal les militants man nit dof sama mbokk artiste la rappeur la et au son engagement. ou appartenance am politique am. c'est li ma bokk ak moom muy hip hop. j'interpelle vraiment ñi nga xamante ni tey jii ñoo ko taaj foofu ci kaso bi. Mhm. di leen